du Sénégal donc nous avons mhm. di ñaanal yàlla daal chat bañ blessure parce que blessure moy nos joueur donc gars yi nañ doxal bu baax baax mm, en tout cas on lui souhaite bon vent tout ce mhm. qu'il y a de meilleur pour lui parce que euh, c'est un bon joueur et il vient tout juste de de de, de montrer ses preuves à l'équipe nationale du Sénégal et vraiment euh, ñep apprécié nañ donc on lui souhaite que euh, le meilleur donc on a parlé hier de, du cas de Crépin indiata mhm donc euh, ñu avons sur le plateau parce que dafa fois, on journal beaucoup ko bu ko titré woon ci revue de presse après on a vu que la fédération sénégalaise de football a sorti Un communiqué Mohamed il disait que Crépin n'avait pas été encore sanctionné mais que c'était encore en cours encore actus sport donc que pensez-vous de ce cas-là euh, je pense que il, est vraiment temps que qu'on soit fixé par rapport au cas de Crépa, parce que et euh, il il a parlé peut-être sous le coup de l'émotion et que c'était tout à fait normal parce que je yëpp dañ koy def de fi mais que pensez-vous de ce cas est-ce que jotul tam tey une bonne fois pour toutes qu'on soit fixé parce que tantôt ni ni euh, a été sanctionné tantôt la fédération dit que c'est pas le cas donc que penses-tu de ça Médio fekkente fédération moo c'est vrai. Mm-hmm. parce que CAF buy communiquer day jox notification fédération. Mm-hmm. Mm-hmm. mais les sites ou bien les organes de presse kenn mooy relayer rek ñop été. ñop confirmé. parce que man gis naa dem canal Horizon gis que l'équipe gis que site yu bari fédération dogay xamné li mi ngi jël mi ngi dem fi mu warul dem. mu genn nii. parce que fédération man pour man duñu wax li nga xamanteni amul parce que. le numéro 2 de la CAF c'est Augustin. oui c'est le vice-président. kon mm-hmm. dara buy xew da ngay xam. Mm-hmm. te moom avocat la du xantu. Mm-hmm. kon man moom boobu laa gëm. parce que nag bu ñu njëkkantu. CAF yàgg na di def ay affaire mais Coupe d'Afrique lañ génn nekkul Coupe d'Afrique ñu fa déraillé xam Mali bu ñu paree ñëpp ngay sanctionné. gis nañ bi ñuy toog am na ku dóor arbitre bi si ñoom. du noonu compétition da ñëw nga xool. nooy harmoniser waat pour beneen yoon bu gën a neex mhm. mais pas di wax na lii di wax na lii rek damay sanctionné mhm. coach si Maroc baa ngi ni dañ ko sanctionné après match bi stop ñu bàyyi ko mhm. mooy bi mu xuloog Chancel Mbemba ñu aj ko deux match mu toog benn bi stop mu ñëw pour man dañu war té ci communication yenn affaire source yi dafa war a jóge fu mu war a vraiment mhm. vraiment pour man lool la quoi. mënuñu jékki-jékki rek di créer affaire yi nga xamante ni c'est pour faire le buzz wala vendre. waaw wala peut-être sax y a y a eu d'autres personnes qui les ont mal informés mhm. euh, Abdoulaye. parce que presque des ut information et ces sources euh, duñ la ko mhm. duñ la ko wax donc euh, peut-être que dafa am ñu leen mal informés par rapport à ça mu nekk rumeur bo xamante ça a commencé à prendre de l'ampleur. parce que démb bi ma ko gisé ci journal man gëmu parce que je m'attaque à à quelqu'un sera sanctionné il mhm. sera mhm. sanctionné. Mhm. Parce que les accusations sont graves quand même. Mais, comme le Diop, il faut se fier du communiqué fédération. CAF, Bouyouahal, fédération, du ko wax presse. buy no buy sanctionné bu koy notifié. Mhm. secrétariat fédération sénégalaise de football la koy Le mhm. secrétariat fédéral bu jotee communiqué il est obligé de it. Mhm. publier quoi parce que sanction jour loolu de la jour yàgg nañu ko fee sanction loolu c'est pas du tabou quoi. mais jàpp naa ni daal nañu jàpp ni daal li fédération communiqué. et c'est l'information que information bi nga xam ne moom la quoi. effectivement dafa nekk loo xamante euh, comme tu l'as dit tantôt euh, des rumeurs qui ont qui ont fuité depuis hier. Et comme tu l'as vu, nous, tamit nous des titres alors on s'est fié à ça mais après. voilà après exactement. ils ont ils ont fait. ça a été fixé mais est-ce que euh, peut-être absolument, c'est pas la faute de certaines personnes qui donnent des informations. aux, journalistes ou bien des journalistes qui, euh, vont chercher euh, des informations peut-être qui ne sont pas avérées parce que tamit même si les communiqués ne sont pas officiels des fois il y a des journalistes qui ont des informations c'est ça qui fait les tollés effectivement Marceline depuis avant-hier nous avons vu que ñu ngi information mm-hmm. euh, il s'avère que ce n'est pas vrai beaucoup de journaux nous ont donc wax euh, fédération bi euh, nié donc, je ne pense pas que euh, Crépin Diata, il parlait sous le, coup, de la colère. Mhm. Donc, euh, en plus, le mot de on ne va pas ah se mentir quand même. Ah oui, c'est la vérité. Pour moi, c'est la vérité. Mhm. C'est la vérité. Quand

xool xool supporter la nekk xam nga nag plateau bi ma wax la Diop plateau bi ñëpp fi nekk sénégalais bi nekk këram di togg añ ki nga xamante ne mi ngi ci bureau bi ki nga xamante ne mi ngi ci terrain bi ki nga xamante ne mooy mécanicien ñëpp fi nekk donc les avis sont partagés ku ci nekk mm. da ngay génnee li ci sa xol donc yow mii di toog ci sa télé nga seetaan li nga xamante ne moom ngay seetaan nga ne ah dañ ñu jaay match bi donc tu as le tu as le plein droit de venir et de t'exprimer yow mi nga xamante ne tu es tu as un avis bien tranché et bien juste tu as le droit d'être vraiment sur tes réserves nga ne ah fédération mieux moi juge, par exemple je te donne un exemple jugement tribunal Dingue, nga ni d'accord mm-hmm. d'accord avec juge ni d'accord avec juge donc c'est la même chose sur le plateau mm-hmm. elle a juste donné son avis même si ce n'est pas son avis qui compte mais elle a juste donné son avis. Voilà, c'est ça. Mhm. Donc, continuez que tu as le droit de donner ton avis. Donc, euh, toi, Amina, nous Guissé, li nga xamante fédération bi euh, wax nañ ko muy communiquer et c'est bien de de l'air, li nga xamante ne mooy information il faut. Mhm. donc fédération bi wax na ak euh, ak sénégalais wax na ak population bi nee na que amagul notification bi woné ni Krépin dañ ko sanctionné donc nak nga gisee acte fédération bi ak li journaux yi jotta def waa euh, parfois information est fuité les médias ne peuvent pas bokkandoo fenn. wax dëgg parce que suñu journaliste au Sénégal. Euh, tey mënuñu né bu ki bindee parce que à chaque fois dañuy joxé source mosoo gis journaliste bu bind te du joxé source effectivement donc euh, parfois mën nek information bo xam fay fuité parce que kaf ñi fa nek amna ay médias yu nek fofu tamit euh, soit ñun ñu jot ci euh gis nañ journaux yi ñëpp même chose lañu ñu bindandoo mais aussi gis nañ crépin Diatta bi nga xam ne moom lui même ci page Facebook am dafa justifié wu wax ni carrément mom bamuy wax lolu nek zone de mix mhm. donc dafa nekkon benn côté bo xam ne ay xaritam la doon waxal té amna ci raison parce que nekul nekul zone de mix nekkul fo xam ne dañ fay waxé ñu leen di teg micro donc mi ngi wax fofu que ni kaaf même bu koy peut-être fim fim fi mu fi pour CAF sanctionné ko waxeewul foofu noonu. Mm-hmm. gis man si loolu rek lay japp ni euh, li CAF wax ni deug la. Mm-hmm. mais nak fédération c'est vrai que moom mooy les bonnes informations peut-être nak moment bi que fédération mi ngi nek di wax ci souf pour que mm-hmm. euh, ñu mën wañi sanction bi. parce que nak mënoo ne carrément mënuñ man mënuma ma ni li que c'est pas vrai. parce que gis nañ ni moment bi loolu amé même ba ñu ñëwé fi sur plateau ñun xamone nañ euh, Crépin dañ koy sanctionné mais nak quand à ñu sanctionné ko 4 matchs ak je pense 10 millions de francs CFA c'est une sanction tellement lourde et c'est énorme di ñaan tam fédération comme ñom la xaar pour ñu avérer ko man de gëm naa mm-hmm. mais xamna ni peut-être ñom dinañ ñew euh, après joxe ben benen notification parce que mm-hmm. tamit il faut ñu am lu sûr mm-hmm. mais nak euh, il faut que tamit ñu wax ci lii nii parce que tamit Crépin waxul wax bo xam war nañ ko mëna sanctionner quatre matchs en plus waxé ko zone mixte teewul joxu euh, wuñ micro té ko parce que joueur tam dañuy am chargé de communication ñom ñep kenn ku ci nekk dañ leen encadrer ci côté communication dofu ñu bay taxaw fenn fi di di di di di wax lo xamné après ëllëg dañ ci am ay problème donc CAF tamit ñu ngi leen di ñaan di wax fédération comme ñom ñofi nekk tamit di xéxal joueur yi ñom nañ nañ ci def ci liggéey bu bu mucc ayib parce que Krépin tamit c'est un joueur boo xam sur le nañ ko mhm. boo xoolee 2025 coupe d'Afrique baa ngi ñëw 2026 mhm. mondial baa ngi mhm. donc daal sur nañ ko bu baax baax donc fédération on ci def liggéey bu ci war insha allah merci voilà yaakaar naa ni dina ko def sax deux matchs sanction moom day am moom peut-être fédération daf ñuy dalal nii rek mais sanction que ça soit quatre ou wala benn match sanction dafay am T'es média itam du ñu tëb rek joxe information Fédération xam ne c'est pas sûr nee na ñu ngi en cours en cours exactement ça veut dire que c'est vrai sentence bi sentence bi génnagul on peut pas deux matchs trois matchs quatre matchs c'est ça li nga wax nga léegi nga ne léegi de mm. da ngay gis journal bu bind page doo ci gis source waaw loolu kooku du journaliste nag ah, ah, ça ñun di daal nu ñu war a daal mooy sanction amagul uhuh. non mais mën nañu sanction génn sax ñu ko uhuh.

mais ñun ñëpp xam nañu Krépin dafay dafay subir une sanction waaw mën nekk sanction sanction même bu dee benn match sax wala benn 1 million. sanction lay mais mën nañ ko avertir tamit. Ah, ma bëgg wax foofu noonu tey lii euh, information mën na fuité tey kaaf mën nañ ñoom mën nañ def benn réunion comité exécutif ñu toog ne lii ak lii ak lii ma génn exactement waaw parce que fédération day def réunion yàgg nañ gis fédération def réunion euh, comité exécutif boo xam ne dañuy génn ñun ñu jot information boo xam ne fédération defagul communiqué dañuy toog 4 heures temps après wala lendemain wala 24 heures après ñu gis euh, ñu dugal information mais média du tëb tëb rek en plus fi may lay wax rek maanaam journaliste boo gis mu génnee communiqué hmm. te deful source kooku de journaliste hmm. am plus ñu suñu fii nii Sénégal gi ñu nekk ni maanaam bañ na ko ba yeneen dëkk yi sax dañuy maanaam dañuy dañuy dañuy gërëm pertinence bi nga xam ne moom la suñu journalistes yi am fii parce que tout temps ñun dañu bokk ci journalistes yoo xam ne tout temps dañuy dañuy donc mhm. à chaque fois bu ñu bindee communiqué wala ñu defee benn information da joxe source su nekkee di moo ko def da source di moom moo joxe information après nag peut nag gars yi ñoom disport la ñëw peut-être ko ne fan ngay jëlee mm-hmm. information boo gis rek dafay am source si suuf mm-hmm. bu dee journaliste nga bu nekkee nag benn chroniqueur wala soit benn euh, tiktokeur nga boo xam yaa joxe sa information boobu defoo source man loolu xam kooku du journaliste waaw c'est ça parce que ñoom léegi ñoom lañ def journal parce que boo demee suñu zone mixte léegi ñoom ñoo fa nekk ah, critiqué mën na joxe information. Mhm. basé aussi benn site wala si ben affaire bien sûr mhm. mhm. mu nekk intox. intox mooy fausse information bi nga xamante ni pas fiable. léegi kooku bu fekkente ni non lay fonctionné crédibilité lay joué. moo tax li grand bi wax man dama siy ànd. parce que c' est pas que yow loo joxe rek téere kenn mënu ko dindi. non mën nga def li nga xamante ni amul après nga nié. nga ne ah. hier loolu stade daf koy dal di dal mm-hmm. yeneen. Mm-hmm. mais CAF defagul. réunion comité exécutif après CAN. ñu mm-hmm. bëgg ni sanctionné nañ mais compétition boo dem après su maanaam comme Sénégal bu ñuy football championnat. après première journée dañuy def kii ñu génnee PV club yëpp jot ko ñu xam. ñan nañu sanctionné te réunion du amagum euh, kii nii euh, nu mu tuddati. Euh, bi ñu arbitre suñu arbitre bi ñu sanctionné. Ah, arbitre bi bi.

compétition dañuy dañuy sélectionner 60 arbitres. Mhm. plus compétition bi dit par rapport à l'équipe qualifiée. on élimine les arbitres. exactement mais l'arbitre gabonais fait partie de l'élite A. Mhm. FIFA. Mhm. il a été retenu pour. à la pour coupe du monde de effectivement de même que l'arbitre arbitre B, Issa Sy. sanctionné vous ko mauvaise prestation la def. c'est juste ça mauvaise prestation ñëpp xam nañ match bi passé. Mhm. match bi mu arbitre contre Sénégal. ba ko ci doon notre baaxul. effectivement te du ci am moyen. Mhm. mais nak ça ne veut pas dire que arbitre bépp arbitre arbitrer match bo xamné ne dañ lay cas de départ. Mhm. non non y aura plus d'arbitre hein, <laughs> sur le continent. Hein. effectivement alors ah, merci Abdoulaye je profite de cette occasion aussi pour euh, libérer Absa parce que les banques kay xaar Absa